sëñ Aliou Ndim sëñ Mountakha di wax dëgg li mu def nun jéemunu ko sax a fay waaye dañ koy ñaanal rek fu nu toll ndax bis bu toll nii mu defal ko taalibe maamam bu mag ba di Cheikh Ibrahima Fall lii kenn mësu koo foog waaye nag moom ak bëggam Sëriñ Tuubaa rek moom la wone ci Cheikh Ibrahima ndax xam gu Seex Ibra bëgg Sëriñ Tuubaa ni mu ko bëggee looloo tax mu feeñal lii ndax ku xam sëñ mu Mountakha xam ne bëgg na sëriñ bi bëgg goo xam ne kii nii bu feeñee lii lii ci Seex Ibra rek ak bëgg gu boppam bu bëgg Sëriñ Tuubaa moom la wane ba tax na boo gisee colam gi mu solo sax da ngay daal di xam ne dafa delloo si démb ndax sëriñ bi kat ku ko mas xam ci nitaal yi ñu koy nitaal mosoo gis musol dara lu mel nen lu weex maam Cheikh Ibra Fall mi itam kenn mësu koo xam ci gis ko ci nitaal yi ñu koy nita mu genn col gu ñuul kon dafa indi ñaari jëmm yëpp la indi ak seenu melokaan ndax lu weex la sol lu ñuul la kaalawoo lu ñuul la teg ci boppam loolu lépp ñaari jëm yi la indi seenu melokaan ak bëggam nag ci Serigne Touba dong moo waral lii ndax bëgg ko Seex bu mu bëgg na ko maamam ji te muy lu wér te mus koo jaawale dara looloo tax mu jëkkale ko lii mu ko jëkkale kon sëñ dara wax ji moom du